asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo euh, di leen wax ne euh, xam ne soo ba léegi yéen a laaj def si découverte def si découverte muy euh, Dramé boobu nekk du côté de du côté de Leeds nekk benn latéral droit a football percutant xam nga donc nekk avenir am 21 ans ñu ko gënoon a xam si si si petite catégorie yu Angleterre mu jouer fi U17 U19 affaire yooyu noonu donc ay Gambien sax la ñu gën ay origine mais dafa xamal ne donc comme quoi tey bu ko mën a dem donc loolu moo tax ma gën si def découverte et aussi tamit suba ba léegi maa ngi gis ngeen ngeen may mentionné di wax pour ma def ci vidéo donc pour ñi ko mu ngi foofu euh, tey nag amoon euh, euh, sax Belgique Jules Waregem Jules Waregem doon joué quart de finale coupe Belgique boobu muy joué xam ngeen suñu joueur bii di Mbaye Leye Thiakh nekk na fa entraîneur wala léegi nekkatul joueur laay wax kenn si benn joueur boo xamante ne naa ci moom je pense que a un bu baax baax ci peu muy Badou dur, Badou Ndour basse, ñaari basse, doublé euh, donc équipe basse, gagné 1-0 ñu avons gagné 2-1 donc ñu qualifions c'est euh, entraîneur mooy Mbaye Leye donc euh, Jules Waregam voilà donc mu nekk ben information bu xamante ne nak partager ak yéen pour ñi xamul nak Badou Ndour il suffit juste ngeen tapé Badou Ndour seen football TV sur sur sur recherche barre des recherches sur YouTube di ngeen gis découverte bi ma def ci mom donc di ngeen ko xam euh, avant muy nekk fi sax la def découverte bi d'ailleurs sax dama def ci mom découverte rek une semaine après mu changé de club donc c'est un jour bu xamante ne baax na te war ngeen ko mëna xam bu baax a baax donc un très bon joueur benen information bu xamante ne bëgg naa leen ko jox mooy kii di et mais j'ai construit une grande chance vidéo vidéo là avec moi passe des images ben passe bon nice ça eh, eh, Jerson Martins comme donc vous parlez vidéo but donc qui dit Jacobs depuis que Mujeru fait les comme là nice ouais j'ai ben vidéo parce que boy Sénégal a fait une transformation alors faut que moi je fasse ben vidéo spécial comme là sous le lac et les volets de ben on mais nice de ben vidéo Euh, dugal bii joxe passe décisive ça veut dire que confiance bu extraordinaire la jóge fa c'est comme Iliman Ndiaye c'est comme yeneen joueurs souvent comme Pape Gueye aussi tamit bu mu nee équipe nationale Sénégal à chaque fois que ñu jóge fii rek bu ñu demee fële def prestation donc kii di kii di suñu suñu suñu latéral gauche bii di Ismaël Jakobs xaw woné na bopam euh ci sen match bi xamné ne noonu ak Leeds United ñu dóor 4-2 euh doublé de Embolo euh, Jason Martins ak euh, but ak passe décisive de suñu latéral bi Nicolas Jackson dañuy dess nak ci ben match bo xamantene amna am euh, mu doon muy Nice ak kii di Tottenham bu bu Pape Matar Sarr latéral droit beneen bu xamante ne def naa aussi tamit ci moom découverte c'est des joueurs yu xamante ne moom sur seen football TV Antoine Mendy 18 ans dugal na but égaliser si seen jàmmaaloo ak Tottenham à savoir que suñu Pape Matar en deuxième mi-temps dafa dougal tout match bi le jouer dans deuxième mi-temps yépp donc euh, voilà et boy bi itam c'est un très bon latéral droit boo xamante ne dafa naa leen découverte waxal na len Lucien Favre li mu wax ci mom c'est un joueur boo xamante assez intéressant dañ ko surclassé woon saa si petite catégorie yu yu niche foofu donc e euh, 18 wane na fa bu baax a baax prestation pour ñi nga xamul tamit découverte am mu ngi ci chaîne bi si vous juste ngeen tapé comme ni ma ko Antoine Mendy wala découverte Antoine Mendy di ngeen gis barre des recherches sur YouTube di ngeen gis sama vidéo affiché comme ça ngeen seetaan ko xam kon mooy kii di Antoine Mendy. Euh, Mbaye aussi tay dugal na euh, match amical match amical dañu jàmmaale ak équipe bi c'est un peu difficile de le dire nag esprit laa ko mën donc en amical moom aussi tamit euh bon confirmé moo ngi ngi niveau bu baax donc temps il passé match amical dugal na quadruplé manam quatre buts sur un match donc euh, cette fois ci dugalaat na bi Mbaye aussi tamit mo ci tempo bi à voir ndax lii dina ko gën a en championnat pour espérer pourquoi pas def comme bagam def is back Mbaye is back du côté de l'équipe nationale du Sénégal moom aussi tamit loolu lañ koy ñaanal je disais comme ça ni mu leen ko waxee si si si Pape Matar xam donc Pape Matar Sarr tey joué na ay eh, minutes xam seen jàmmarloo ak kii di Nice mbokk yi li mu ay xibaar yu ma bëggoon